salaamaaleykum mbokk internet dakar net point com euh, tey ñu ngi fii tey Pikine di dalal Jacob di di xale boo xam ne euh, mun naa ne am na tuuti ci dëkk ci kër goo xam ne mun naa ni dafa juddu rek fekk ngeen mu ci kër gi mu nekk champion tey moom lañu dalal lu ñu def lu dul rek jox kàddu yi rek euh, après ñu dëkk moom ci waxtaan mbër ñu leen di di la ziar. waaw ñu ngi lay fay du nuyu waa Sénégal waaw du nuyu àdduna du nuyu waa Pikine waaw du nuyu tamit kër gi ma nekk waaw di nuyu sama ak jëkkëram Tidiane beneen jëkkër ji Idi ak ñu nekk ci biir kër gi ñëpp waaw rawatina sama yaay baasin maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax du nuyu suñu waa koñ waaw di nuyu ñëpp sant ñëpp di nuyu sama xarit yi tamit waaw di nuyu ñëpp sant ñëpp di gërëm sama yaay santaat sama yaay gërëmaat sama yaay waaw di sant sama papa bu baax baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw di ko ñaanal gudd fan. Mingo kooku mooy Jacob Balde du ñu def rek du dugg waxtaan ak moom ci keroog ndax bu ñu fàttaliku dimanche bi passé ma doon bëre ak doomu Diène Kaïré bi mais Jacob pourquoi combat bi xam nga mu am mu dem euh, ba ba nga gagné ci par avertissement pourquoi taxaw bëree jàpp waa yi daan ko. waaw ma demoon. Hmm? man daw ma maa ngi doon dox ci kawam. mais mais pourquoi comme ni nga war a ñëw gësam ko jàpp ko daan ko. def naa ko de gësam naa de mais bu ma gësamee dafay fekk mu yegg saako bu saako yi hmm. waaw. dañoo gisoon première euh, maanaam première round nga daw attaque commencé koo dóor noonu mais après dañoo gisaat nga téye sa bopp conseil la wala. non du conseil xam nga mënoo nekk di fournir rek. Hmm. ñaari nit bëre ñaara koy def. gisoo benn nit buy bëre. waaw su nekkoon benn nit ay bëri rek dañuy teg foofu leneen li vide lay doon. Mm-hmm. waaw ñaari nit lañ fa teg. Mm-hmm. waaw moom ku nekk gis na lu mu waxoon. Mm-hmm. waaw interview yu ñu ko jël gis nañ lu mu waxoon. mais lu mu waxoon ñëw si def dara. c' la première fois mu bëri combat bu mel nii. waaw man dama kaa estimé woon. bu baax a baax a baax. ndax da ñëw arbitre bi da daan rek noo toll ak noo toll lijjantiw ko. moom lu mu def lu mu lu mu yor la gëm. da nga jàpp ne woon dafa am dara lu muy calculer ci yow. ah peut-être xëy na wala mu bëree conseil rek. waaw. ñu noonu mais dama koy wax rek ndox du bàyyi yoonam. Mhm. nit sa mënin rek ngay ñëw di def. Mhm. yàlla mais mais est-ce bu avance ñëwaatoon di ngeen bëree. pour ma moom waa ah yàlla baax na jeexagul daal. Mhm. waaw loolu kenn waxatu ko gars yi bëgg nañ ko amateur yi bëgg làmb jooju mhm. ndax keroog dañoo wane fu la wane jom wane lépp mhm. waaw xëy na yàlla man la àndaloon rek mhm. di sant yàlla bu baax a baax baax a baax ñu gis ni nga nekk sampion dëkk Pikine euh, war a war a paata Baldé ak ñoom Papa bii bi bi ngay préparé pour génn dugg sa kër loolu nan nga ko dundee ak ak ak kër geek ak sa fant yi waaw sant yàlla rek di dañ cay ànd ak suñuy grand yoo xamante ni dañoo jàpp dara waaw mu ngi noonu ku si mel ni Pape Sène Sidi Thierno Baye dañ say jàpp waaw sama xarit yi tamit ñoom Omar ñoom Cheikh Baye Fall mhm. Cheikh Tidiane ñoom Papa Fall mhm. waaw ñoom seex say daa koccu Daabo Balde mhm. dañuy jël seen xaalis xam nga war na yoon ne kii ñu ngi koy fay na génne xaalisam ñu dem utal ko ñu ngi koy utal mais ñu si dara ñoo xool xam ne ñoo màggandoo ñoo foondoo ñoom ñooy jël seen xaalis di ko def ci man kon ñooñu sant leen di leen gërëm ñooñu man bëreelu ma sax seen waa kër ñooñu laay bëreel ndax ñoo ñooy génn ñooy dox si mbedd bi waaw ñooñu la ñuy gis ak Jacob lu ñu mën a am nit ñi lu leen mën a mere mere su ñoom la ñuy dal. Mhm. ndax ñoom ñooy dégg wax yi. Eh, mais mais gars yi nee nañ Jacob jour boobu daa am la woon sóoraale ci gan gi man mi waaw <laughs> su ma nekkoon da nga doon sóoraale ci hmm? gan gi <laughs> xanaa nekkoon instant. <laughs> nga taxaw gësam adversaire am affaire mais da ne mais ñoom dafa mel dañ ne yéen naa dangeen am ku nekk looy looy looy xaaw di ragal waaw waaw du sóoraale sa morom. ma bëree bëri sama àdduna sax. Hmm. sama combat yaa ngi ci internet yi duggal nga xool. Hmm. man au contraire adversaire ay dox. sama kaw tax bariwul. adversaire ay dox sama kaw sax may arrière. Hmm. waaye ñëw di attaqué adversaire c'est la première fois ma def ko dimanche bi passé. mais mais jàppante bi lu tax lu tax bariwul. xëy na moo ko bëggul woon jàppante nañ mais après ba ma ko jàppee gisoo bëggul woon ñëwaat sax. yàlla xam na ni maanaam xeex nañ sax mais man kuy bëri séeréer yi di. di di wër di bëri di mm-hmm. ay 5 combats par jour wala 6 combats par jour. yaakaar naa ni benn combat nekkul ay daw jàppante ngay bañ foofu. Mm-hmm. séeréer yi la ñuy def jàppante. Mm-hmm. wala jàppante wu ñu. mais xam la moom a jaaxaloon euh, ci ci combat bu mu taxawee ñëpp dañ ne non Jacob dafa jël risque mais malheureusement bu nga ñëwee ba taxaw dafa mel ni loolu feeñul bu jur waaw. ah xam nga gars yi dañuy wax seen ku nekk da ngay wax sa xam-xam. mais ñu xamul Jacob ñooy wax risque. mais ku xam Jacob Baldé dëgg dëgg dëgg dëgg. ah xëy ñu may daan Mm-hmm. waaw ñoo gën a tuuti sax ñoo gën a rëy Mbagnick foofu. mais dañuy sant yàlla mais état de forme bi ngeen andi. dañuy entraînement rek macha allah <laughs> mm-hmm. dañuy entraînement rek day entraînement rek. waaw topp ginnaaw gars yi suñu mm-hmm. waxee teggi la ñu teggi. entraînement yi tamit amuñu kuñ siy xaar. heure bu ñu waree dem rek dañuy dem. des fois dañuy dem stade mais dañ lay gis xam nga sax du nga dem ci di simple bi di fa bëree. loolu secret la walla mais dañoo am licence.

looloo tax ñuy wàcc si lutte bi. Mm-hmm. waaw mais du leneen. waaw léegi la moo nekk sa kanam. waaw dañuy sant yàlla rek <laughs> sant sa papa di ko déglu rek. Mm. fu mu ne ñu teg leen ñu teg fu ñu ne teg leen ñu teggi. Mm-hmm. incha allahu rabi. mais am na ñoo xam ne tey jii teg nga ci seen bët ci ñoo xam ne tey war nga mun a jàpp. waaw comme jën maa ngi muy xataraay pour dugg ci biir géew bi <laughs> na ñëw rek. jën kay rek waaw su duggoon ci géew bi damay teg ngem mañik bi rek jox ko ko def ko kaay. mais mais mais Jacob jën jën jën jën champion la de. kii woon ñu ko. macha allah ko non maa bëgg ñu bëree rek waaw. jàpp nga ne boo jàppee di jéen di ko kii. ah yàlla baax na xam na mañ moom nee neen moo ma ëpp doole ak yooyu noonu. moo waaw moo dàq bëre waaw koo gis ne. Mhm. maa su taxawee comme nu ma entraîné mille fois lay entraîné pour ëpp ko. tey ku la andi woon avance jéen di ko jël. fay lekk nga naan may jël. <laughs> mais mais mais mais mbër yow dama mënul concevoir que comme moom rakam nga jàppante nga am bu bëree daanoo ba yëg ci kawam. est-ce que revanche gënu woon mën a jege ka nga ne dangay. dangay dem fee ci jéen. man jàpp ma ko de mais jàppante ngeen. su ma ko jàppee mu jeex dañoo korante xam nga jàppoo ak koronte sa fait deux. Mhm. korante ci kaw la. Mhm. jàppoo nag mooy téye fii ma téye fii. Eh. amul ku ma téye ngembam mu rëcc ma. noo yàlla jégal sax si wax ji. Mhm. lépp lu yegg rek moom la. waaw. mais yàlla baax na daal su ñu neexee ñu tëgg ko maag mañik. lit simple. ñu ñëw comme joolaay nu ñuy def. roofoo jàpp bëri ñëw rek jàpp ngeem. Mhm. bëri arbitre doog a pour ñu bëri. mais mais mais mais dama bëgg nga wax ma lu leer xam tey jii bu ñu ñëw ne la avance Diène mi ngi nii Jacob say ba xam say mbokk nañ nangu nga ko. dama koy lekk déggoon sama mbokk suñ ko jëlul sax man maa koy lekk. Diène Kairé waaw pour. <laughs> mais teewul suñu waree bëri dañuy bëri lii suñu gagne-pain la. waaw. Mm. waaw làmb ji moom. Mhm. dañoo ñëw pour teral si suñu papa teral si suñu yaay. Mhm. am na yoo xamante ni sax matut a wax. Mhm. nañ nekk ci lu ñu war a nekk rek. ñun mhm. ñëpp ay xale leen. mais mhm. jën moom champion la ku ko xam-xam ne champion la. ku ko xamul sax xam ne champion la foo tudd jën dañ la siggiwaat xool. waaw keroog keroog ñu gis ah, lamb bi taaru macha allah nga nga andi ñu stade bi fees dell mooy mu andi stade xam nga lamb bi taaru rafet. loolu loolu nga ko gisee. waaw dañuy sant waa Pikine rek. ndax ñoo def mobilisation bi lépp Pikine la. waa Ngor Wakaam Yoof. Bargny Tubaab tubaab jalaaw yéen yéen kaw yéen suuf yëpp ñu ngi leen di gërëm lébu yëpp ñu ngi leen di gërëm mhm. di gërëm waa buq tamit mhm. waa buq xam mhm. buq robi ne ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax fépp lébu fu mu nekk rek maa ngi lay gërëm sama côté yaay waaw di nuyu waa midina au passage sama yaay fa la juddoo fa la yeroo fa la màgge mu ngi noonu di nuyu sama côté yaay ji fami sama famille maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn waaw alors bu ñu jugee foofu dañuy dem ci Pikine yaakaar naa ni bëree nga daan waaw mu des na mu des ay champion yu bari yoo xam ne tey ay combat mi ngi seen kanam ku ci mel ni sa papa Ama Baldé war a jàkkaarloog Modou Lô mu bari coow face à gisoo nu mu demee ba mhm. coow li bari ba ba mujjeewul am léegi ñu leen dalaaj combat boobu yow ne nan ngeen ko préparé ak nan ngeen ko gisee waaw ñu ngi si wàccaay na lu ko war xam na ne ndam rek ko soxal moom anamu moom mu ngi si wàccaay gi de <laughs> bu baax mhm. da koy def mais tamit bu mu am coow bi mu am te te te bëreeguñu mhm. yaakaar nga ne am nga ci yow benn euh, xel ñàkk ni combat bi dina am. combat bi dina am kay incha allahu rabi. Mm-hmm. ak coow li nu muy nu mu bëree nii. ñoom ñaar ñoom ñaar sax taxaw def face à face. mais ñoom ñaar ñëpp lekk neen avance. suñu mm-hmm. mënul def face à sax maa ngi ma ñu def est man signature yëpp gis nañ ma. Mm-hmm. xam nga gis ñu gisuñu ma mm-hmm. mu ngi noonu nag mais teewul ba ñu waree bëri bëri na. Mm-hmm. ñu waree bëri le 25 décembre incha allah rabi dinañ bëri ama daan ko jël bu gaaw incha allah. d' accord ne combat bi euh, jàpp nañ ko 25 décembre. ñu gis ama tamit bi mu daree bëre ba léegi Modou Lo lay laaj. Modou yàlla def seen combat taxaw. waaw Modou Lo war euh, yor roi des arènes te ama nee mun a am tey jii nii jël roi des arènes bi moo ko gënal. lu leer est ce que yaakaar nga ni combat boobu dina yomb. ku wax combat boobu day yomb moom day nax boppam Modou Lo Ama rek loolu rek. imagine toi yéeg lépp ak ngay wane. <laughs> imagine Modou Lo Ama rek du yomb. waaw du bu taxawee Modou Lo taxaw Ama ko xam-xam ne bu abine par day dox sa kaw ak noo munti toll. te Modou du arrière. su arrière wàcc de. kon ko ah. su arrière laal suuf. bu kar arrière wàcc du. Modou Modou Lo waaw. est-ce que ko fa taxaw. xaar hmm. sax Ama dafa diis de. de mais mais est euh, ñun est ñun jàpp ñu que ni yéen instant da am fu dëgër fu euh, fi ngeen taxaw parce que dañoo gis combat bi ni ngeen ko jëlee yéen yéen yéen ay wax yéen ay kii affaire yooyu noonu. non non pas ay wala victoire dafa nekk ci yéen. non non xale la doyoo. xam nga suñu morom la ñun ñi waaw lu ñu magee lu néew la rek. mu ngi noonu. wàllu xeex bi parce que bul fàtta ne ne Ama tamit dafa war a am revanche bu mu jëli ci Modou Lo que moom moo mujj ci ci ci ci Pikine. waaw mu ngi noonu waaw ba xam bu jur waaw. Malick Niang am ku ko dàq xeex si arène bi. Mhm. mais mais yaa xam nga ne xeex yi benn la. Malick Niang kuy ne di suñ ko tegalee dix pesos bu xeex ak boobu <laughs> loolu wax <laughs> yàlla rek taw féex rek. Mhm. mu ngi noonu yàlla amat mhm. mu am ci jël bu gaaw. Mhm. incha allah lay demee sax. bu ñu fa jógee tamit Pikine amaan nag beneen combat bu leen di xaar. mi booy mi mi booy ñaa ak tafaatin waaw tafaatin bëyoon ak ama. tey nan nga gisee combat boobu. waaw di ñaanal booy ñaa ndam rek. Mm-hmm. ñun mënuñu lu ñu koy mm-hmm. gisee waaw. mais naka nga ko gisee non lan lan lan nga ñu mën a wax ci combat parce que gis nañ ne Ama Baldé. Mm-hmm. bëree na ak euh, Tapha ak tamit taay bi. ku mel ni Tapha nga war a jàkkaarloo ak moom bëree. booy ñaan ñaata adversaire la fi bëreel de taay yu toll noonu. mais mais adversaire bu nekk ak mu war a taxawal. ah mais loolu moom moo staff am ñoo koy gérer rek. Mm. waaw <laughs> mais d'accord pourquoi dangoo dugg ci affaire yi waxtaan. ay ci ci ci gars yi. Hmm? moom. parce que ku nekk xam nga yow la mooy sa qualité yéen ku nekk xam ngeen seen biir lii ak qualité am ak kii. waaw moo tax nga war a mën a taxaw wax ne combat bu ñun lii lañ ci gis ak lii fii lañ ko war a def fii lañ ko war a jàpp bëre. Hmm? <laughs> <laughs> yooyu. Eh. yëfu jàmbur moom yëfu jàmbur la. man eh. moom mais lépp pikin la. waaw lépp pikin la moom moo tax man ko booy ñaa hmm. xam na lu ko si war bu baax a baax a baax moom du xam na lu ko war ci combat bi baax. Mhm. xam na ni waa Pikine veillé rek lañ ko laaj. veillé laaj. waaw mhm. te yaakaar naa war nga leen yoon parce que ñëw nga def li la mhm. xam nañ lu leen war. ndax ñoo ñu jiitu ci làmb xam nañ lu leen war bu baax. ñu noonu pour teral yaay wala papa wala ñenn ñi rek. xam nga li la war. mais tamit bu tax ko bi yaa ngi xaar parce que. Euh, kii bi des na te yaakaar naa war nga woon mu bëreewaat beneen combat. dimanche bii di ñëw suñ ma tëggaloon combat ma bëri dimanche bii di ñëw. mais ñu mais promoteur est ñu lay woo di la proposer comment. ah gars man yooyu moom géré wu ko sama papa. te rek sama mhm. a baax a baax rek gars bu ñëwee ne la. maam da te koy jël. waxaa ko ngeen la ne ca maam sa da koy jël <laughs> ah. doo tey dafa mel tey nag ah, Jacob dafa mel da nga dégg quoi parce que maa ngi ñëw sànq ba léegi maa ngi bëgg a dugg ci waxtaan bi mais dafa mel lu mu xaaw a tëj quoi lan la lan xew ah suma jaaga la ci maam ak kii yeeg yooyu doon waaw waaw. noonu la demee mais lu dul def rek lu dul jox la nga tàggatoo parce que dañoo bëggoon ñëw xam ne temps amuñu bëggoon ñëw jël sa réaction après combat bi nag nga ko doon préparé ak nga nga ko bëree duñ la jox rek lu dul nga tàggatoo gaay yi. waaw ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di santaat sama jabar. waaw di ko sant bu baax a baax ak ay magam. su mel ni jeewo mm-hmm. faat koket ñoom ay dafay mm-hmm. ñoom mareetu ñoom waaw ak ñoom Paco waa Europe daal waa Italie. Mhm. waa Espagne Allemagne. <laughs> Fallou di Gaza. Angleterre ñëpp maa ngi sant ñëpp daal ak waa Maroc yi tamit maa ngi leen di sant. Mhm. waa diaspora dañuy béggee Sakho Balde bu baax a baax maa ngi gërëm ñëpp di sant mhm. ñëpp. mu ngi noonu di sant ñu may àndal bu baax a baax baax. sama xarit yu may àndal aw ma seen fay. yàlla bu baax a baax nelawuñu. une semaine fii lay nekk di veillé. xam nga loolu ku la ko mënal yow. mënoo lu dul nga yeewu rek war a mhm. dem entraînement gis ay nit toog pour yow mhm. kon ñooñu waruñu laa gën a góore ñoom lu ñu la laajte laajtew ñu la xaalis laajtew ñu la dara ndam rek la la laaj mhm. kon war nga am jom di entraînement ba dee waaw man ñoo ñooy tax may rayante bëre jéem a remporter gars yi gars yi jàppale daal leen mais mais jën kare moom dina la dégg jën ah war na maa dégg de ah. ma déggee tamit mu ñëw rek moom jàmbaar la <laughs> uh-huh. moom jàmbaar la macha allah waaw may nga mm-hmm. xam koy tàllal rek booy mu yóotu ma ma mm. xaw a jëw tuuti jara <laughs> waaw maa koy jàll <laughs> mi nga mbokk point com ki ngeen doon laaj uh, Jacob Baldé tey ñëw nañ ba Pikine tey seet si ko uh, mu nekk sampion tamit uh, nekk jàmbaar parce que déggoo lu mu wax nee na day xëy fekk ay nit ñu bari toog ci ci ci buntu këram di ko xaar kon yaa xam naa ne moom mënul leen dara lu dul entraîner jàpp dem daan euh, di ko ñaanal comme nu mu bëgg ci carrière am yàlla na ko suñu borom def champion la di leen waxaat chaque jour champion la jaay ngeen def du nuyu sama cameraman bi Ndiaye maa ngi lay bigg